man day compter laa tudd. waaw Ndeye li dal ci sa kaw métti na ñu la koy masawu. mën nañu wax en tant yaay lan nga yëg bi am na naa rek aw métti aw métti la laa yëg métti na lool moom jàng na ba wàcc ay deux heures la wàcc mu ñëw añ ma suur toog si mbedd mi fii si xale yi di fo bi ko jël foofu la ko jël la ko ndax ba yóbbu. anta xamul dara bi mu ko yóbbu sax nee na ko xaaral ma tàggu sama yaay bala maa sama yaay dóor. mu forcé ka ba yóbbu ko yoon nag na si def liggéeyam fu mu yem neex ndax dafa metti si xol wala laa amoon si lu ma leen di wax. bi nga xamee ne man ci kër gi la ma fekk man maa ngi ci waañu di toog ki ko neexale cent francs yi ba moo ñëw ne ma ana Anta ma ne ma ana Anta ma ne ko gisuma Anta ba ci yàgg ma ne ko yow lan ngay doyee Anta mu ne ma Anta dama ko jox cent francs mu war maa wecc fukki dërëm loolu laa koy doyee ma ne ko Anta su ma ko gisee tey dinaa ko dóor ndax xaw ma lan nga koy joxee fukki dërëm waaye man gisuma Anta ci laa commencé nag di ko wër. boobu ji ban ban jamono ban waxtu laa ko mujjee gis. tisbaar ci ngoon ci suba gi. Ah, ci suba gi. deux heures laa ko mujjee gis jàngi na ba wàcc añ ba suur toog fii si xale di fo boobu laa ko jee gis. kañ nga yëg ne loolu am na nañ dañ fa ñàkk ba kanam. ay cinq ko yëg. metti torop metti na fu metti yegg. waaye di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm. tey jii nii am na ñu ñu xëyee ñoo xam ne jàpp nañ leen teg leen loxo ñoo xam ne ñu leen di enquête. Hmm. loolu également yow bi nga ko déggee loo ci wax. li ma ci wax na ci yoon def lu man ndax metti trop dafa bu ñu defoon ko rey ñu rey la fi loolu rek laa amati lu may wax. ah ab yaay nga si yow la dal looy wax tey jii yeneen yaay yi nga xam ni seen ay doom lu mel ni Marie Tali mën na leen dal. pour que ñu mën a jël seen ay matuwaay. ñu jéem a seen i doom leen bu baax te xam ne kenn njëtt a wóolu kenn njëtt a wóolu. dafa am koo xam ne da ngeen dara jëfuma ko dara it antay defu ko dara. kooku jigéen la wala jigéen ci koñ bi la nag. fu mu dëgg fii. ci koñ bi ki ko nax ba jox ko cent franc yi ba yóbbu fii la dëkk si koñ mën naa ne la diw la. joxtoon ngeen ne kooku lay man ne boobu ba léegi sama xel moom la xalaat ndax affaire yi dafa am ba pare mu di ma wërle ba pare boo anta fi mu feeñee moo ko woon nit ñi moo dem ba ne leen ma ngi nii kon na kooku mun see mucc. ah moom loolu nan la demee moom moo nekk foofu moo ñëwoon jël cent franc jox ko ko ñëwaat laaj fukki dërëm yi ak ànd ak yéen ñu koy seet. ñu ko seet ba mu ne mi ngi nii man nag egguma. bu ah, ko tëddal egguma fa. ma ni nit ñi ñu ne kooku dee na rek laa waññeeku ne kon sama doom moo dee. ma ne ay koray sama doom. moom moo leen yóbbu ba si place bi. moo leen yóbbu ba foofu ba won leen ko ci la nit ñi wax bu fekkee moo am.